jërë jëf mbokk yi yéen a ànd ba tey ak seen télévision Futur Média seen émission yeewu leen ñaareelu pàcc bi wala bu mujj bi daanaka euh, dañuy dem nag ca waañ walaatu ñu ñëwaat ci rubrique yeneen yi xool fu nu toll ci euh, ndekki li tey Alfi. waaw tonton sax. waaw euh, comme niñ koy ni niñ koy defee saa su nekk. dañu jëkk def première partie bi maanaam lépp luy découpage donc ñu dagg suñu soble. dagg suñu poivron jaune parce que de genre recette yu mel nii tout le temps il faut ñu ciy def légume donc euh, am nañ fi tamit ay herbes aromatique muy persil euh, dagg naa ci sama sauge bi ma am fii ci ginnaaw. Mm-hmm. dagg ci basilic bi ak euh, tuuti cori romarin du moins. Mm-hmm. donc herbe aromatique yi tamit daf ciy dem xaw ma ndax mën naa tàmbali léegi ba. wala ñu ñu ñu dugal sa. waaw ñu dem ci Sofia waa ñu dem ci Sofia sa xarit ñëpp Sofia laatu ñuy ñëwaat ak yow ci waañ waaw. Vuelo, vuelo, koy jaajëfal mook Alfi saa su ne moo waral it waañ wala fay neex saa moom daanaka <laughs> euh, ñu wax ko tey ji ca dee lu ñu fi togg ci ndékki rek moo ko <laughs> moo koy lekk <laughs> foofu bu demee kër ga nag nu muy def ak ban lay lay joxe Alfi nee na sax dafa may remplacer parce que dafa mel ni dafa am ay information yu mu jot a yu mu jot a ah, am léegi waaw léegi parce que na dafa may wuta remplaçant non ñëpp a yem nag même ci rédaction yi fu ne dañuy jàng ba mokkal dàqulu la yow fu ne waañ wi nii di nga xëy bis rek am ku jël waañ wi dañuy dañuy topp ba nga ba nga jàng leen ba ñu mokkal yóbbu laa la traite <laughs> donc hmm. Tonton Assane comme ni ñu koy defee ça c'est avec euh, les beurres Sofia ku ne xam na ni tamxarit bi mi ngi waaj a ñëw te beurre sofia day dem ci cere yi donc comme ni ma koy waxee aussi bien ci ci recettes yu saf sukkar wala ay recettes yu salé beurre sofia daf siy participer parce que y a rien de tel a bomb rek mhm. def ko ci xam naa nag euh, ñi ñi nekk régime ñu permettre parce que benn jour bu mel ni tamxarit euh, mhm. tout est permis maanaam ci wàllu régime ak ci wàllu cholestérol ah. te beurre sofia ay euh, vitamine lañ ko enrichir te sans cholestérol la donc mën na dem ci bombum cere bi te du am benn benn gaañu gaañu mhm. donc bu ñu revenir ci sunu ci sunu recette bi maanaam ci ay croustillant aux crevettes donc li koy composé ci euh, maanaam ci wàllu ingrédient dinañ mel ne mel ni ay crevettes crevettes yi nga xam ne dañ ko xolli nettoyé ko euh, bu ñuy bu ñuy seetlu crevette bu entier dama dama fàtte sax denc benn parce que dama nettoyé yëpp donc dañuy dañuy xar crevette bi ci digg bi pour mën a génnee. Euh, mën naa wax boutit yi ah mhm. parce que boutitu crevette bi fii lay nekk ci digg bi maanaam da ngay jël sa benn da ngay jël sa paaka rek daal di def benn benn dagg bu ndaw di nga gis benn membrane bu ñuul boo xamante ne mooy nekk fii donc loolu loolu duñ koy waruñu koy faral di consommer mhm. parce que soo koy lekk ak crevette yi da ngay mel ni luy lekk suuf mhm. donc en général suñ ko nettoyé lu sooy lekk crevette ah bi di mel ni luy daj ay suuf donc loolu waa loolu moo koy moo koy waral donc ni ni ñu koy gisee ni nettoyé nañ ko ba génnee ko donc crevette nag su fekkee yu dijji yu toll ni yaa ngi koy am ci ay kilo 5000 jàpp 6000 hmm. donc xam nga dafay xaw a dafay xaw a metti hmm. mais comme ñun ni ñuy defee suñuy suñuy recette saa su bu ñu nee croustillant aux crevettes du ñu jël crevettes yi kase il ñu def ci ay légumes donc ma dagg daggat sama soble euh, laaj ak poivron jaune mën naa commencer def ko ci sama ci sama euh, casserole bi pour def première cuisson bi parce que damay dindi ndox yi nga xam ne moo nekk ci légumes yi Euh, def ko def ko ci pool bi def tuuti dawlin soxla wuy soxla wuy muy bëri donc def ci samay légumes maanaam mu nekk première cuisson cuisson pour légumes yi donc deuxième bi day dem day dem ci four bi pour mën a ñëw nekk croustillant donc soo déggee nag ñu ne appellation croustillant bi li koy li koy waral mooy pâte bi nga xam ne dama dama koy waaj a utiliser pour def ci sama farce parce que damay defar benn genre farce boo xamante ne euh, crevette moo koy composé légumes ak fromage hmm. donc damay jël tamit crevettes yi yii ma ni ma ko amee nii mën naa leen bàyyi entier moom tamit su ma génnewee légumes yi ci biir pool bi ba pare dama leen di revenir maanaam dama koy tiital moom it tuuti ci biir pool bi laataa ma koy def ci biir farce bi donc loolu yëpp daf may permettre ma dini humidité bi nekk ci légumes yi te nekk ci crevettes yi ah. nga xam ne su ma ko defee samay croustillant bu génnee dina joxe donné effet boobu ñuy wax croustillant mhm. parce que soo bëggee luy xuyum xuyumee il faut nga dé dindi lépp luy humidité maanaam lépp luy tooy tooy yi waaw su fekkee ay yàpp la wala ay ginaar soo hmm. mënul euh, soo ko mënul précure maanaam soo ko mënul saaf pour première cuisson da ngay jël lu mel ni ay mburu nga lal ko ci pour mu naan humidité bi nekk ci biir euh, matière ci biir euh, éléments yi donc ma taal sama four ñëw ci sama pâte bi nga xam ne moo nekk ay feuille de brique feuille de brique li koy composé farine de blé la ak farine euh, ak farine de semoule donc moom lañ koy defaree ñu koy defaree ci dëkku naar yi en général donc mu nekk ay pâte yoo xamante ni dafa dafa dafa mees maanaam soo ko gisee day mel ni ay këyit mhm. donc moo nekk ni am na ci commerce yi ah donc yii nii moom la ñuy jël après def ci suñu farce donc ma teg ko nii ba ñu paree defar farce bi crevettes yi mhm. moom lañ doon wax sànq donc ma ñëw ci beneen étape bi mu nekk fromage parce que il faut ñu indi produit laitiers yi tey moom dañuy lekk dañuy consommer produits laitiers comme xale yi mhm. donc ma génnee sama fromage muy fromage feta fromage la boo xamante ne dafa xaw a sab xorom ñu koy defaree euh, à base de lait de brebis maanaam lait brebis mooy xar bu jigéen suma ma jumulee donc soowu soowu xar lañ bu jigéen lañ koy defaree donc mu nekk fromage boo xamante ne dañ koy affiné def ci xorom bu génnee bloc bu mel nii la lay jox donc ñu jël sunu fromage def ko sunu salade donc euh, jël euh, sunu beurre tey tey damay utiliser quand même beurre sofia bi comme ni ma koy defee saa su ci biir. ci biir waañ hmm. ma xoolaale légumes yi. parce que légumes yi dafay ñëw dugg ci biir fromage yi. donc nii ñu koy gisee nii mel na ni lu waa luy xaw a ñor maanaam def première cuisson ma def ci jonge itam jonge épice jonge super doré du moins mais duma ci def lu bari jël sama xorom moom it def ci biir. parce que il faut ñu safal ko avant ñu koy def ci biir pat bi. déedéet xorom moom mooy noonu nit. <laughs> non du ëpp bu mu ëpp rek. fii moom lépp lañuy ñuy doser donc ñu teggi sunu première maanaam légumes yi delloowaat ko ci sunu salade yi bàyyi ko mu sedd donc comme ni ma ko waxee ma ñëw ci crevette yi moom it def ko ci biir teg ko ci pool bi def ci tuuti dëwlin ñëw sànni ci samay crevette donc deux minutes soxlawul sax mu yàgg ci taal bi moom it nga def tuuti xorom yëngal donc day changer couleur en général bu ñu jëlee ay crevette grise suñ ko defee ci poêle bi rek dañuy gis ni dafay dafay rose maanaam couleur bi day changé pigment yi nekk ci crevette donc moo ñu koy may donc ñu def ko aller retour ci biir poêle bi donc ba ñëwaat ci farce bi muy euh, fromage brebis bi ma def léegi ci biir salade yi Fatou Kiné dem dégg la <laughs> Fatou Kiné ma ne ko papaan nee na xet gi neex na ma ne ko moytul Fatou Kiné dégg la summi la <laughs> donc ba ñëwaat ci beneen façon fromage muy emmental euh, râpé mhm. yu entre mooy moom tamit dafay ñëw ci biir farce bi so comme ni ma ko waxee sànq dafay composé euh, fromage légumes ak sunu crevettes yi donc duma ci def lu bëri parce que moitié bi dama koy terminer ci biir brique yi donc ñu tas sunu fromage ñu seyal ko donc farce bi ñu jël sunu ay légumes yi ñu defaroon maanaam yi ñu def léegi ci biir casserole bi donc def ko ci biir fromage bi donc mélange ko ba mu jox ñu benn farce dañu fàtte crevette yi donc puisque crevette yi dafay ñoraat ci biir four bi soxlawul muy yàgg ci taal bi parce que fii dañuy faral di jël crevette yi togg ko lu bëri lu yàgg te crevette en moins de 2 minutes 3 minutes baax na parce que éléments yi ciy nekk soxlawul muy muy ñor xomb bu ñoree xomb sax boo koy lekk dangay ngay mel ni kuy lekk chewing-gum donc dootoo dajati ci cafka cafka crevette bi ñam bi donc ñu jël crevette itam def ko ci biir farce bi donc mélanger sunu farce donc base bi lañuy jël bu ñu paree def ko sunu ay euh, feuille de brique donc suñ ko defee ci feuille de brique bi enfourner ko mu nekk deuxième cuisson au four donc bu génnee jox ñu ay <coughs> croustillant aux crevettes excusez-moi donc nii la mu nekk euh, soble poivron jaune crevette ñaari xeetu fromage muy fromage feta ak fromage entremont euh, entremont râpé donc ñu ñëw ci feuille de brique bi sans oublier sunu ay herbes aromatiques waaw moom ci la ñuy jël farce bi moom la ñuy jël farce bi def ko ci biir. donc avant may ma ciy def ma dagg sama ay herbes aromatiques maanaam euh, persil bi ma wax sànq euh, basilic bi ak euh, romarin bi donc moom mu parfumé sunu farce. ba pare may ñu benn digestion bu assez facile parce que herbe aromatique yi loolu mooy seen njëriñ maanaam may ñu benn digestion soo koy lekk waa ça facilite la digestion te duñu du indi benn ballonnement wala benn benn comme ni ñu koy faral di waxee xer ñeeñ ñi maanaam nga lekk loo xamante ni dafay dafay takk sa dënd bi donc ñu jël ko Saalum yeeg yooyu surtout suba gi mbaxalu Saalum moom xam nga boo ko reeree moom. <laughs> yooyu boo ko reeree sax waroo dem waroo dem tëddi waroo dem tëddi immédiatement. waroo dem tëddi foog nga jaar raxma dàmba <laughs> yëngal yaram bi tuuti ndax mbaxalu Saalum moom doo yëg diisaay bi lu may boo naanee ndox booy lekk doo ko yëg nag mais boo naanee ba jóg. da ngay dañ laa yan àddina <laughs> yooyu moom dañ ko war di añee di ko <laughs> éviter di ko reere waaw añ bee ci tane nag wala boo koy reeree nga lekk nga teel ko lekk maanaam ay booru 19 heures 19 heures voilà nga xamante ne di nga am temps wu digérer mhm. donc laataa ma koy def tonton Assane il faut ñu <laughs> ñam xool ndax suñu faas parce que suñ ko xasee ba def ci biir mélange bi dootu ñu ko mën a ñam ok donc baax na bu nekk ñëw na place ma jël sama beurre maanaam beurre euh, doux ak sama beurre sopia tey nag dinaa jël sa temps parce que explication recette bi. waaw non am na solo nag. waa dafay ndax ci bari ci la ñuy jàngee di. dafay dafay dafay dafay dafay xaw a xaw a gudd. mais bon après fii dañ ciy jàng. ay cuisine rapide la yoo xamante ne bu génnee. Hmm. ñëpp dinañ ci mën a jëfandikoo donc dañuy jël beurre bi moom it def ko ci biir micro-ondes bi. Hmm. mu sey tuuti. parce que genre pâte yu mel nii mënuñu jël rek lem ko directement donc il faut nga badigeonner ko maanaam nga tooyal ko tuuti ak ak beurre. Hmm. pour mën ko lem. ba pare su génnee mu mën ñu jox effet croustillant bi ñu annoncé woon bi ñu annoncé léegi ci biir ci biir euh, recette bi donc ñu seeyal beurre bi ci sunu micro-ondes donc jël sunu pinceau jël mhm. jël euh, am na solo de ah <laughs> donc jël sunu pinceau tonton Assane. ah ah jël. Euh, non dafa am solo jigéen jigéen ak waañ ak mën a togg. ay la yàlla na togg mën a togg mbay. restaurant dina la rey. dalay lay rey. am na góor ñoo xam ne muy gisee ci bedd bi rek la ñuy lekk. billaay ay rangoñ rek ngay fanaan. <laughs> donc ñu jël euh, ñu jël benn kuddu farce maanaam euh, sunu mélange bi nga xam ne. suivre nañ ko léegi xale yi takkagul nañ ci bàyyi xel. Mm-hmm. ay di xool tool gi rek li mu sol rafet naa xale bi xees na xool leen ku mën a togg. <laughs> donc def ko lekk gu bon na leen rey. waaw mooy base bi de. gis nga caméra man ñoom ñëpp alfay seen xarit. <laughs> Mhm. ñoom ko jeeg ñoom Fafak. ñëpp. te donc ñu jël euh, ñu jël ñu <laughs> jël ay ci alfi continuer ñu jël euh, sunu de brique maanaam lem ko. Ah. mel ni lu koy def benn pochette. ok pour euh, tëj farce bi ci biir. moom xanaa xeetu neem lay doon après. Euh, bokkul la monsieur noonu nu muy jox neem parce que galette bi daf lay jox. Euh, pain euh, nu mu tudd. Mhm. feuille de feuille de feuille de maanaam bi ñu utiliser pour defar neem. ok donc ñu jël paquet yi nga xam ne nii ñu ko defee nii. donc noonu lañ koy dugalee suñu four dañuy defar 10 yi ñu am fii yëpp. Mhm. donc suñu paree dugal ko ci fuur bi. Mhm. bàyyi ko lu jàpp 10 jàpp 15 minutes. donc su génnee papier bi dafay croustillant. ok parce que feuille de brique bi moo ñuy àndil effet croustillant bi booleeg pat bi euh, farce bi ñu am ci biir. Hmm. Euh, bu ñu koy déguster xam naa après di ngeen ma jox di ngeen ma wax résultat yi. parce que yéen laa yéen rek laa. déjà macha allah moom. pour déguster. Hmm? ah, ah kii bokkul ak Ndeye Yacine Moussa Mbadiane ma. <laughs> Ndeye Yacine Mbadou. Ah, Ndeye Yacine Moussa Mbadiane Fatou Mbaye moom. <laughs> moom moom moom lekk rek la man moom. mais nag jigéen jigéen ñëpp ay jàmbaar lañu. waaw Alisa jigéen bu dugg ci waañ ba génn lu mu la jox lekkal. waaw waañ wi métti na bi métti na tàng non waaj métti na Aziz. Ah, ah ma dafa yomb de. ah Pape An mi de bu duggoon ci waaj. Eh. nga gis loo mosut a gis ci àddina. waaw Pape moom dafay ne ko baaral comme ni mu defee sirra. <laughs> boo xam nga lépp da koy benn bennal ndeysaan ak balaa moo yàq nga dee xiif. waaye defar baxana bu defaree ba taalal baxana. <laughs> <laughs> donc tonton Assane dañuy yeggali yeneen yi rek. bàyyi la le temps que ngay terminer. ok ah parce que des na du rek euh, li nga joxe après dama koy enfourner. ok euh, bàyyi ko ci four bi lu jàpp 15. Mhm. jàpp 20 minutes. ba samay feuille de brique coursi ah, ma génne ko. ok donc nii rek laa koy defee. ba ba may terminer moom moom ko bëggoon a ndekkee lu mu koy booleel. Euh, mën nga jël sa benn salaat te mhm. boole ko ak moom. su fekkee ñi nga xamante ni dañuy dañuy suivre régime. bu mel ne ak man na man nag nga xam ne sama yaram dafa soxla cholestérol mën naa defar frite ci wet gi. wala nga defar sa ceeb. Mhm. lekk ko ak moom. très bien donc lii lii mooy euh, base bi. Mhm. mais mën nga ko accompagner ak lu la neex. ok d' accord jërëjëfati Alfi euh, mu ngoog croustillant aux crevettes. ci kanam tuuti ñu delluwaat ci waañ wa xool fii Alfi toll ci li nga xamante ni mooy ndekki tey bii nu baaxee mbokk yi seetaan gën ca nag mbokk jigéen ñi ñoom it ñuy bàyyi xel ndax xel du doy ah. ku ci ne fa nga ne yaa ngi say clé xëy waaye boo ci doole yu alfit dara doo gaaw am wujj <laughs> euh, yi jikko yi nga xamante ne nag euh, moom la ñuy faral di làmbool euh, du yëpp baax li ci bon nag la ñu fas yéene rek ay bés bu ne ñu ànd ceeg yéen di xastante suñu biir xas ko mu dañ du du ay saagante duy werante mais ni xasee garab fexe ba la ca dee ñu dindi ko ba ca lay dund foog naan dina am solo dina taaral nit ki ak nekkinam ci penc mi tey nag wàllu commérage xam naa mooy jëw geeg wax ji sew ji rek sëñ Binta moom ngay waxtaanee ak mbokk yi. waaw commérage ni nga ko waxee El mooy jëw ak euh, wax ju sew ji dafa bari ci réew mi. Euh, ku nekk ak ni nga ko gisee euh, am na ñoo xam ne tàllal nañu si suñu micro dañuy dem déglu leen ñëwaat ci waxtaan bi. jëw de maanaam ni ma ko gisee mooy day loo xamante ne ñu ëpp ci Sénégalais yi des koy def te ko parce que di nga toog ak toog di wax ci diw. te ngay wax nekku fa te mu leer na bu fi taxaw doo ko wax kooku jëw la te dafa bari façon. jëw dafa garaaw ndax parce que souvent dangay nekk ci ay nit nga yéene leen jàmm nga yaakaar ne li nga leen yéene lañ la yéene te fekk yéenewuñu la loolu da ngay toog seen biir nekk ak ñoom ci jàmm ak salaam soo wanee gannaaw ñu wax la lu ñaaw. yow daal lu bon la ndax wax nit ci gannaawam loo xam ne du dëgg te nekku fa te bu fa nekkoon doo ko wax loolu moom kenn santaane ko. jëw moom baaxul waa jëw moom nit ki moom soo xamul moom soo xamul si nit ki dara moom bu ko waxal dara waaw ndax léegi moom Sénégal jëw daf fi bari ndax gars yi léegi dañuy toog def seen grand place teg seen ataaya ku romb ñu jëw le te loolu baaxul te xamal nit ki saa yoo koy jëw moom mu ngi gën a avancer di gën a nekk si yoon nit ki daal yéene ko lu baax loo sañul wax si kanamam bu bul bàyyi ba mu dem nga taxaw di ko wax ndax loolu baaxul un déjà di nga am baakaar un da ngay tardé bi ci desaat ci alquran yàlla mi nga naan ay yuhibbu ahadukum an yakula laxma aqi maytan fa karahtumu boo jëwee mi ngi mel ni ki nga jëw ma tudd jiwte nekko fi te loo xam ne da ko naqari tey mi ngi mel ni bu tëddee dee ba am ñetti fan ma dem tiim ko di lekk ci yàpp woowu moo gën di tudd nit fu mu nekkul ay nit fu ñu toog ñëpp duñu yem am nit fu ñu toog ñëpp duñu bokk maandu ñi dinañ wax luñ xam ñi dinañ wax luñ xamul ndax bëgg a waxtaan waaye looy wax te xam ne du dëgg daal jar naa seet bu baax yow daal baaxut fii baaxut fenn daal. jëw dañ ko aay aay goo xamante ne yow sa bopp boo ko dee déglu bu ma ko bu may jëw nit nga toog déglu ko sax da am bàkkaar kon lu bon la. ñuy dem def benn liggéey dañuy yow teg seen ataay ku romb ñu wax ne kii lii ak lii lii ak lii baaxul nit da ngay dem uti liggéey nga liggéey soo amul liggéey nga business nga xool looy def jéem am avancement yi jéem a suturlu xool loo tere lay waay voilà mu ngoog jëwoo ngoog baaxul sénégalais boo ko wax mun la jëw baaxul <laughs> ñenn ñi ñoo dàq jëw ni ko ajaa waxee ca régie ba waa régie ba dañ nuy jëw saa su ne ñoom it saa yu nekkee waa plateau bi la ñuy jëw euh, lan nga gis ci jëw wax ju bon xam naa ni ñàkk fit la waaye am jot gu bari ca la Alaaji Asan jëw moom daanaka ñëpp koy def ndax nee nañu jëw bu baax am na jëw bu bon am na mm-hmm. waaye bu bon bi dafa jéggi dayoo ci réew mi ah. di nga taxaw ak nit di wax ak moom def ko dénk ko sa lépp nga wane ginnaaw mu toogee la loolu baaxul mhm. na nit ki bu amee ci yow yaakaar ñoo toog yow wax la soxlaam mhm. daa bëgg nga dencal kooku li tubaab naan secret waaye amatul ci réew mi dafa yàqu te yaakaar naa lépp si ci jikko yi rek la tënku ndax ndax jëw moom am na ku ko wax léegi dafa ni dafa mel ni ñu suul nit ñetti fan ñu ñëw sulu ko di ko lekk kon xam nga ne loolu baaxul am na lu ci lislaam wax oustaz dina su ñëwaat mhm. jëw dafa yàq réew mi ci dafa yàq réew mi ndax ndax ndax ndax nag euh, fekk nit ki toog xamaloo ko te ñiy jëwoot sax alaaji asan mhm. dañuy fekk yow nga romb rek alaaji asan di dem sa yoon ñu nekk ci yow te xamaluñu la dara <laughs> wala ñu toog ci salon de coiffure yi wax nañ ko ci dama dem ci salon yi parce que mhm. foofu euh, lieu public la dem ci restaurant yi da ngay fekk nit di waxal nit loo xamante ne te ne wër na yàlla mosulaa gis mosulaa xam te xamul ndax man mi toog xam naa la mm-hmm. jiw bi daal aljaji asan doy na waar oustaz am na lu ci lislaam wax jëw mm-hmm. nit jëw nit jëw ki ngay jëw di wax ca moom te fekki wu ko ca pour yàlla jéggal la loola wala moom jéggal la da ngay dem ba ca moom ne ko diw baal bërki démb jëw naa la wax naa la nangam wax naa la nangam wax naa la nangam te jëw ëppee ëpp na doole fanweeri njaaloo moom jëw est-ce que ni njaaloo araam ni njaaloo bone hmm. jëw ëpp na ko doole fanweer yoon hmm. réew mi nag réew la moo xam ni ki ñuy gën a jëw nag ki ñuy gën a jëw. Euh, mooy ku yàlla defal mooy ki tekki ki tekki rek. bëgguñu ku tekki. <laughs> kii jëw koo gis kuy jëw ki ñaan dafa nekk ci xolam. Mhm. gis naa la jël koo koo gis xolam mhm. gis mu baax nekk ci lu kooku talul jëw kenn. talu ko kooku talul wax lu ñaaw kenn. Mhm. kooku talul yàq deru kenn. waaye réew mi grand place boo gis bu dee fukk juróom-ñeent yëpp lañ fay nekkee mooy boogee doomu aadama yi. di wax lu leen leerul. loolu mooy jëw yaa ngi leen di lekk bon na moo tax it tardé rek moo moo oto bu taxaw ci amul moteur a yem doo dem doo dikk waaw ku dëkkee jëw wax ak grand place doo dem doo dikk Elhadji Assane Binta am na pàcc pàcc bu wax bu am solo euh, am nit jox ko sa bopp mu génne euh, sama maam daf ma daan wax nii gor yi seen biir yëpp du jour a tax ma ne ko lu tax mu ne ma danoo danoo bëgg ku nu waxal te amuñu ko te boo amee koo xam ne boo ko wóoloo wax ko sa bopp du ko génne confident uh-huh. confidence boobu boo ko amatul ci sa bopp loo am da koy denc mm-hmm. te bu fekkee loo am denc ko am na mitit yoo xam ne dala ciy dab mm-hmm. te nit foog mu wax mm-hmm. mais El Hadj Assane euh, am jot muy indi yu baree bari ñàkk am liggéey mooy indi yu baree bari bari na yuy xew ci koñ ñu koy génne di ko wax te amul ku liggéeyiwul demul demul dikkul moo koy waral. dina am ci góor dina am ci jigéen. moo tax li nga jiital ci wax bi sa émission ba le passé waxoon na y a pas de sommet c'est-à-dire benn liggéey joru la xeeb. bokk na ci am ñàkk am jot gi pour mën a toog di tooge sa nit. dëgg la mais réew mi fi nu àgg ci ci ci ci ci ci laaj gi ci wax lu ñaaw Pape wax na ko léegi. mooy nit ki baax ku nekk da nga koy wutal sikk mhm. la mu am lu ne ñu wutal ko lu ñaaw lu tax mu am ko mhm. la muy def lu ne ñu ñaawal ko ba ku ko bëggoon a def dootoo ko def mhm. te nit foog muy toppandoo waaye toppandoo lu baax moo tax ñuy wax kon bu fekkee ni El Hadj Assane jikko yi dafa yàqu ci wax lu ñaaw ci jëf lu ñaaw nit ñi danoo am jot pour toog di ko def waaye ci xëy liggéey yi amul jot googu moo tax nit dafa war a am métier <coughs> moo xam ne bu xëyee da cay ne li sëñ doon wax borom kër ak waxambaane xëy génn kër gi ni mbalit rek moo leen war. ni mbalit génn wuti liggéey moo war boo bañee mucc boo bëggee mucc. ci li nga xam ne mooy wax ju ñaaw ak bàkkaar yi nga xam ne moo cay aju. dëgg la jërëjëf jot gu bari baaxul nit ñi nag souvent du nu du nu du nu xalaat surtout bàkkaar yi doo xalaat diine ji nga bokk doo xalaat sa ëllëg aussi. c'est très important mais lépp éducation la aussi. nit ki amul diine amul yaru diine boo koy wax yu bàkkaar da ngay taareel sa bopp rek. <laughs> Ah. professeur Sénégal rek ngay gis ñu naan deuxième bee mën a daw. Mhm. première ba ca kanam nag. Mhm. kon ni papaan wax sànq dëgg la ki jiitu. Mhm. moom lañ teg bët. am na fas wu ko tuddoon Kajoor jàkkaarloo jëwoo ko dàq. Mhm. xanaa xamu ne boo goree doo jëw. xanaa xamu ne boo boo boo boo amee looy bañ doo jëw. képp koo xam ne mi yaa ngi ko gis muy jëw ñemewul ab ragal. Uh-huh. parce que jàkkaarloo dafa dàq fop boo ñemee nit da ngay jàkkaarloog moom. dañ koo wax dañu ni euh, boo gisee koo xam ne bu toogee mi ngi wax ci moroomam leneen. kooku da ko gën moo ko gën fopp ndax nit ku nekk jàng war na la dañuy wax ne ak loo mënti liggéey jàng wàccu la ndax war ngaa mën a bind yër xam sa réew xam sa cosaan ak li ko wër léegi nga xam ni kenn jàngatul ñëpp ñu ngi ci jëw ak maandu te xam lii tere dee du xaalis xaalis tax na ba kenn jàngatul kenn maandootul ñëpp di jëw mm-hmm. ki walaakaan a mooy ki xamul yoonu daara xamul yoonu tool paabaan mm-hmm. mun a tere leen mënut a jëf lenn fu mu toog di jëw te lu mu wax mu dooni fen looloo bon. ak di xalaat di wax di sos. Uh-huh. sosa ngoog. Hmm. jëw dëgg bi gën a bon nag mooy di sos. Hmm. te jëw da li li ñuy wax jëw mooy jëw ki nga xam ne la nga koy wax dëgg la. waaye léegi nag réew mi dañ ko booleeg sos. jëw bu ànd ak sos hmm. gën a bonante waaw sos goo xam ne lañ lay waxal dara amu ci. dañuy fent te mënoo fa nga taxaw fa di wet. Uh-huh. léegi léeg ñu wax la baat boo xam ni mi rek koy dindi. waaye doo am foo miime bu nu xëyee bind wax ko ci rajo yi mu tasaaroo ci réew mi bala nga naan du dëgg mu am ñeenti fan bala ñoon def ci dëgg ñi ci des tukki ñi ci des yóbbu ko feneen moo tax réew mi métti moom tax wolof di wax ni fa fa yow la egg man yeggu fa fa yow la egg du man fo yeggu fa Adja Alassane jiw Euh, kii wax na ko nee na bon euh, professeur nee na nit ku defe naa ku bon la wax ku ragal la koy def mhm. mais man jàpp naa itam ku bon ku bon alaaji as moo koy def te it euh, Abdou Aziz itam il faut nga am jot pour mën a di jëw ah. di toog ci mbedd yi ku rom nga wax ci moom mhm. waaye itam mi ngi ci biir bureau yi alaaji Assane mhm. da gis koo xam ne dafa war a liggéey jël kayit ba teg ko fële yow téléphone bureau bi <laughs> ku ne mu woo la waaye diw lu mu def démb uh-huh. li ko xamal nga ko lii xamal nga ko lële te wër na la loolu ba mu koy def yow fekkee woo ko dëgg la dañ la ko wax rek nga xëy suba tasaare ko ci ci ci ci bureau bi tasaare ko ci dëkk bi Alaaji Assane jëw bu dee liggéey la uh-huh. man damaa jàpp ne man dañ ko war a def délit mm-hmm. parce que tamit dañ ko war a def délit mm-hmm. boo koo ci yóbbu ci yoon ñu teg koo loxo. <laughs> c'est vrai Alaaji Assane parce que euh, yàq deru nit dafa baaxul. ñaaw na yàq deru nit lu ñaaw la. li mm-hmm. ko oustaz waxee léegi dafa mel ni rek nga jël nit ku dee di ko lekk. xam nga ne kon loolu araam na. moo raw njaaloo moo raw mm-hmm. njëpp. kon loolu lu bon la. ok dañ ko war a def delli ci réew mi. <laughs> kon de ñuy sànku dina bari. mais beneen beneen problème bi aussi mooy que c'est comme la corruption fu un corrupteur amee kii géré. dafa da bu amulee ki ñu ger du am mais kiy jëw bu amee c'est parce que kiy dégloo fi ne ki ñuy nettalil sénégalais dañoo bëgg toog ñu leen di nettalil ca loolu ku ku ku xam nga nit boo ko defee nawle doo nangu dem bureau di ko nettalil mais kii toog moom nekk réceptif bi ou réceptacle bi day bëgg ñu koy nettalil moom mais ña xam nga tam nag du ñu ay gor parce que nit bu amee ngor am di di am lu muy bañ dina nawlewoo ki mu séqal muy sa patron di planton ba di sa collègue de service da nga def nawle man jomb naa ñëw di la nettali ca ngay sama nawle pourquoi nit ñi di nangoo dem séq ak seen i nawle ay nettali. Alaaji seen loolu mi ngi tàmbalee ci éducation. Mhm. di Diallo wax na ko sànq ci yar ba wàcc woo sa doom lu xewoon ci kër gi. Mhm. muy nettali mag njëkk ñi bu njëkk boo masaan a ñëw booy nettali ñu toj sa nopp. Mhm. sama yaay da naa bëgguma ko ma nettali. Euh, Alaaji bu Saaxo dafa wax ni. Mhm. yal na yàlla yokk leeram amiin yàlla léeg-léeg nit jël dara ñu ni dafa sàcc ñu topp ko di yuuxu sàccee fekk nee na ca ña koy yuuxoo nit nga ca ko xam ne def na loo xam ne ay buñ ko waxoon. dëgg la ay bu buñ ko génne woon. Mhm. loolu lu am solo la ci doomu adama dëgg la yenn saa yi ña topp ca gannaaw bu ñu leen càmbaroon gis loo xam ni moo ëpp la koo ko defoon fopp ci loolu mi ngi ci biir jamono ji mhm. loolu am na important jamono ji moom moo changé penc mi moom moom mooy laaj yooyu je suis vraiment désolé de le dire mhm. parce que loo gis rek mu prospéré mhm. am njaay bu jaree daa mi jëndkat nit ñee bëgg jëw nit ñee bëgg ndaje bëgg ay grand place bëgg wax waxi jàmbur am jot jot gu bari nag baaxul mais El Hadj li nga wax lépp dañ kumpa moo koy waral loo xam ne lu nu wax ni am na mu jaral laa paas dem seeti ndax am na dëgg du dëgg te bu ñëwee yokk ci lu la lu ca bokkul loolu mooy dañ kumpa am na ñoo xam ne boo ko bëggee def dañ kumpa lu ne nga xam ko lu ne nga wax ko lu ne nga bëgg ko xam mel ni yàlla yàlla mayul kenn loolu te yàlla mayul kenn loolu ah, boo boo nekkul yàlla dangay ngay daal di nekk seytaane hmm. te que seytaane baaxul fenn moo tax. nit ñi wër di waaj léeg-léeg nga dégg benn problème koo xam ne danaan man de dinaa xam dara bu suba yow bàyyil bu suba ma dem laajal la. am na sa dañu sawar te loolu naka jekk na mas na am mais mag ñi bari mag ñi. Mhm. parce que mag ñi dañu amoon ngor gu daan sàmm. dëgg la am pas-pas bu nu yeew ci diine. Mhm. ba tax ñu jomba def yenn yi. Mhm. mais léegi ñun suñu diine dañ koo dañ koo dañ koo sëlmoo. waaye naanuñu ko. boo ko sëlmoo nag heure bu la neexee boo woowee nga def def leneen. boo bëggee sël mu waat ku ñëw toog. sël mu sax ngay wax léeg dañ koy dañ koy dañ koy toilettoo ngay wax. waaw dañ koy toilettoo guddal sikkim yor kurus sol mbasin bu rafet xeeñ lu neex. voilà fekk lépp nag ah? lépp alajasan dafa ki ñaan da ko laal. Mm-hmm. te bi bind indi. Ah, ah. solo lépp. Mm-hmm. mooy wax lu dul dëgg yàq deru as wër di laaj di luññutu pour am lu leer pour toroxal as mm-hmm. toog di jëw di yàq deru doomu aadama nekk ci place bëggloo ko avancé benn da nga xeeb sa bopp mm-hmm. mais lépp ki ñaan daf ko lal mooy problème xol Sénégal da ci am ñoo xam ni dañu am problème xol te xol nag ni ko bi ko yàlla bind dafa weex leer mhm. boo jëwee day am tomb tomb bu ñuul mhm. nga wax lu dul dëgg tomb tomb bu ñuul nga soxore nit tomb tomb bu ñuul mhm. tomb tomb yu ñuul yooyu day dem ba sa xol day muuru ki ñaan nekk ci yow moo tax yonent bi waxoon ni alxasadu laa yasuudu nekk sang mukk yàlla ci yàlla musal nga ko léegi ndax man nag yaakaar naa ne nag euh, yow bul xeeb sa a dem toog bureau euh, Abdou Aziz mii waaw toog bureau xeeb sa bopp toog xeeb sa bopp di ko nettali li xew ci dëkk bi mais loolu xeeb sa bopp weesu ko leen yóbboon daral ba ne leen ma jaayee la ñaata ñun la ñaari dërëm xeeb seen bopp sol sa daal di ñëw sa bureau nawle di ko nettali ah, di nettali ci sa nawle ne moom xeeb sa bopp weesuwul loolu mais on est dans une société qui encourage ces genres de comportement am na lu koy réglé mooy li nga wax sànq koo xam ne ñëw na ci weer bu ñu leen doon weer bu ñu leen sàcc wala bu ay jamono ku naan ci mbedd bi ñu sànni lay xeer xamal leen nit ñi jébbaaneetuñ lu bon dañ koy encouragé boo taxawee di weer di weer di weer sab nawle ki nga koy weer mu toog. jël téléphone am def ko haut-parleur. waaw ah. lu ko gën a ñaaw xam nga loolu lu ko gën a bon. c'est c'est lâche même te kooku mi ngi toog. c'est lâche même lâche lay wax moom. voilà loolu c'est lâche malheureusement Alfie xam naa ni jigéen moom surtout sa maas geeg ne ci waar yi moom du ngeen tal sax du ngeen am jotu sax grand place buy jóg euh, comme ni ko oustaz waxee rek mhm. des fois iñaan la parce que boo demee ci salon ah. euh, jàpp TFM mhm. gis animatrice ba mosoo ko sax gis man des dama naan est du butum succès c'est vrai nga nekk wax ca moom ñu newoon ca salon ba yëpp tourné di la xool mhm. te yow yàlla xam ne ni mosoo ko sax gis <laughs> des fois dama naan di créer sa bopp euh, lii parce sax gis. xamuñu la sax war nañ war nañ ko wàññi daal war nañ ko wàññi. léeg-léeg nga woo nit sax téléphone mu wax sa tur ca kaw fa mu toog allo Alaaji Assane ana waa RFM ana ana Mamadou ana Alassane. complexe boo coupé téléphone bi boo paree bul xam la mu fay wax. mais El Hadj Assane mooy ci service yi. Mm. dugg ci bureau chef. Mm. waxal sa nawle boo xam ni. nuñ ko dàqee. lu luñ ko dàqe wala luñ ko dégradé <laughs> te ñooñu kat ci administration dañ leen di jox ay faveur mhm. léeg-léeg nga am bokkandoo di benn diplôme wala ngeen bokk benn benn benn benn hiérarchie mhm. mu fena fena fan bu yéeg koo xam ne fene ko fa <laughs> c'est vrai El Hadj Assane <laughs> moo tax li la doguma la ku ay yéegale di xaar ko ci jël ba moo tax li 100 pour cent wax dafa am solo mhm. nee

avant muy wax kenn jóg muy wax ci moom di wax lu ñaaw ci moom. Hmm. mais kooku bu mu ñëwee dama ko ne hey wuyul kii. waaw jaaraatal ji nga ma ne ko li nga wax kii waxaat ko. dëgg la mais dama créé xeex bu rëy ci classe bi keroog El Hadj Assane. xam naa ne kooku moom dootul nettali kenn. non dootul nettali kooku fa lay yem su mu déggee fu ñuy nettalee mu daw. Ah, noonu la <laughs> mais Abdoulaye Aziz dina ma rey di fen ba am promotion. vraiment <laughs> <laughs> dara mais c'est encore fois la société qui encourage ces comportements loolu la nit ñi bu fekkoon dañuy teg mérite ca kanam waaye léegi réewam wax ba jël la ñu ne euh, ñoom Talla Sylla ñoom Moussa Tine ak si wala groupe maa ngi leen di sel yi ñoom euh, sëñ Ba dañ daan wax naan jëf jël waaw léegi nag wax ba jël la Sénégal pour la dàq wax dàq fent dàq taggaate muy jël et c'est malheureux. mais tey ñun tamit am nañ ci rôle bu am solo ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci aada ak cosaan. Mm-hmm. war nañu waat delloo nit ñi ci lan mooy nit. Mm-hmm. ak lan lay lan mooy dignité. Mm-hmm. parce que ñàkk dignité àgg na wax loo xam du dëgg te bu la taajee nga am gàcce. ñàkk dignité mooy fekk koo xam ne sam nawle la. Ah. nga kilifa loo xam ne dootu ko bëgg gis te loolu du dëgg. te mënu ko biir am lool loo leen wax defe ni am na ñoo xam ne dañuy defe ni kenn du fen. parce ñoom xamuñu loolu. koo ñëwee fen ci kanamam. parce nit ñi dañuy ah, waat ah, waaw dañuy toog di waat. di waat dañ lay njëkk ci Sëriñ Tuubaa wala Alaaji Maalik la ñuy wax dara amu ci <laughs> Alaaji ma dikk Njaay moom waxoon ne ma pap ma ne ko naan mënu ma nit bu ñu lay tuumaal ma ne ko mënu ma da yàgg mënu lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg bawul dara nga bàyyi yàgg nekk ci sa njub nekk ci sa dignité xam sa bopp waaye am na ñoo xam ne mu laay dañuy waat euh, bay dóor kaamit Gaynde Fatma hmm. Gaynde Fatma dafa toog ci jamono ay kilifa yónnee ci moom di ko laaj ñaari million mu jël xaalis bi def ko ci enveloppe def ko ci suuf ngegenaay li toog ba ñooñu egg si di ko laaj xaalis bi mu woo ñaari bëkk nekk ñu ne ko gisuñu ko mu woo soxna su mag si ci biir kër gi mu ne ko gisuma ko mu yónnee mbàkkee ñu defal ko xaalis mu jox ko ñooñ ñooñu dem ñu teg ñetti fan moom bu guddee daan invité ñu bëree bëri mbooloo mépp toog mm-hmm. ñu jekki ba ci yàgg ndekete benn bëkk néeg bi moo jëloon xaalis bi ñu dégg xot-xot ji benn waay bett ko mu daal di jël xaalis ba daw la ci des mu denc ak moom kooku ñëw fekk Serigne Cheikh fi mu toog ñëpp a ngi toog mu a ko Mbàkke diw moo sàccoon xaalis bi hmm. sëñ bi di ko génnal sama kër ci biti gor kenn du ko toroxal dëgg la jeex na tëj na waxtaan bi euh, jërëjëf vraiment ñu amoon mbégte ànd ak yéen ci pàcc boobu nga xamante ni moo ñeel wàllu jikko yi am na solo trop ndax jikko moom mooy nit wax dëgg yàlla ci loo mënti gis nag euh, sa jikko mu rafet it moo lay jox lu ne je pense que ni ak yar lu mu la mayul safaano du la ko may ci euh, nit euh, ko <laughs> vraiment fànk en toute chose nag ki nga ni moom ngay dem di nettali sax xamul nu mu def ba am yàllaa ki da ngay am jot dugg sa ruq toog jël sax 10 minutes ci war sa kurus wala dellu ci mag ñi wala liir benn téere wala dara waaye ne ci àddina ragaj ragaj kaar boo jël wàcc jël ba ca des toilette boo jël changé ah taloo dara ci àddina kooku da ni nit nga euh, ñuy wax du mala du bëy du leneen du sax crevette yee alfi di préparé alfi à tout à l'heure ñu dem ci wàllu daan doole ñii moom taluñu wax ak jëw ndax ku toog ci mbedd mi lal say daal di jaay daal fëgg jaay yu mu ci mën a doon ñëpp jàmbaare rek ndax y a pas de sot métier liñ koy waxee wax dëgg yàlla étage 4 4 mbasin ca tegoo ko ci ngor kooku doo jaroo ñee mais ki tegi dàllam bay dundal njabootam kookoo barkeel le kon ñu ànd ak Oustaz Assane sekk ci daan doole ji. si gis mooy ñooñu dañu wax dañu bëggul liggéey de un de deux compris parce que nit ku nekk da ngay commencé en bas di ñaan yàlla di yéeg ah, bon ñu bari nag am nañ ñu am tey mais fi ñu bu ñu la waxee fi ñu jaar si suuf la ñu jaar jaay soccu comme ni nga wax am na ko si am milliard ah, mënoo ñëw rek jékki-jékki rek am milliard ah wala boog ñu wax ma fi ñuy jaar ñoom. tëdd nelaw moom naréewu doxul kooku moom yaanul maanaam waaw parce que nag nit ku nekk war nga xam ne réew pour mu dox foog nga jóg yëngu pour doxal réew mi waaw ak lu mu mën a demee ki mu gën a tuuti sax mën na doxal réew. parce que boo toogee sa kër liggéeyoo jàppaloo benn yoon état donc état boo fu nga jëlee xaalis bu jàppale la donc yow kay yaa war a def li nga war a def liggéey. participer sa dëkk mais waroo toog sa dëkk di la di la jàppale loolu yomb trop. état nag moo lay fekk si li ngay nekk mu ñëw teg si loxoom mu dem mais boo toogee bëgg état fekk la foofu état moom fi mu nekk sax moom yàllaa ko fa fekk mu mën faa nekk. nga commencé si lu ndaw boo si toogee yàgg ci di nga gis buntu wala nga gis si opportunité man loolu laa jàng ba man mi peintre bâtiment la damay summeeku sol sama tenue yor rouleau du peinture te bu ma demee si jàkka ji bu ma summeekoo sol sama yëre olof yor sama kurus ñu yaakaar ne mag sëriñ bu mag laa fekk demewul noonu xeeb baaxul waaw nit ku nekk ak wërsëg bi la yàlla wërsëg la liggéeyal rek ak mu mën di doon liggéeyal tant que liggéeyoo dara du dugg loolu mooy wax ci tant que yëngu woo doo mës a gis dara doo mës gis xaalis doo mës dara sa kër voilà Oustaz Assane Seck ñu koy gërëm mbokk yi muy pàcc bi mu ñu jagleel ci wàllu daan doole gi di leen wan rek wala di fexe di leen wan ni y a pas wax dëgg yàlla loo am jaayantul loo am génnal daanal doole yàlla moom ku génn rek di nga daje ak sa wërsëg ñuy gërëm bu baax ñooñee ko loon interview bi rawat ni yëngu ci wàllu jaay dàll am na solo sax dàll wax dëgg yàlla xam nga nit moom <laughs> loo gis da nga koy xeeb waaye bala nga ko doon tàng nga def tànku neen dàll rek ngay xalaat waxuma laak nag teg ca bu Aziz di xool marakis yi <laughs> mbaadu li ko booy waxee pas jaay taar yi ci gi fi nag dafay am ay pas taar du ma leen tudd mais y en a deux déjà sur le plateau euh, ñu daal di ñëw ci euh, wàllu sira bu fekkee ne amu benn commentaire bu ngeen def ci métier mu ndaw mi métier su ndaw si xeeb baaxul am na ñoo xam foog nañ ni bureau rek mooy liggéey man ba may ba may door maa ngi fàttali ca 96 ay tàggee laa commencé woon ko avisé communiqué. et j'étais en troisième année au département euh, d'anglais. mais ay tàggee nit bale sax bu ñu la ko dénkee na set. Mhm. nit moom li bon rek. ajaa mooy li nga wax sànq. Mhm. toog di jëw rek wala ngay si boor yi waaye sa doot daanal sa doole rek. bu bari mu néew na barkeel rek wala di tàllal loxo. tàllal loxo moom nañ ko bàyyi ak ñu war a tàllal loxo ndax ndax ku amul it non wax dëgg yàlla ku amul it laago mënoo liggéey d'accord mais mhm. comme tu ñu ko def métier nañ génn ci métier mi parce que bu ñu ci duggee dañ koy yàqal ñi ko yellool. dëgg la amul soo métier El Hadj Assane jaay ndox si mbedd mii jaay glace jaay gerte jaay lépp rek. yaa ngi wut revenu rek. te boo amee revenu mën a faj sa soxla yaakaar naa ne yenn yi du la ci fekk loo ñàkkal sa bopp fayda nit ki daal bul xeeb dara loo xam ne boo ko defee am ci sa tuut. Mhm. def ko. Mhm. moo gën ñàkkal wàccee sa bopp. wàccee sa bopp nag mooy tàllal loxo rek. Mhm. am na solo. El Hadj Assane euh, Adja Binte développement bi mu indi dafa am dafa rëy. te El Hadj Assane ku xeebul sa wërsëg mu yor la mais dinaa joxe ñaari exemple rek pour nit ñi xam koñ bi ñuy wax jàllu picc nit ku doon jaay ay picc rek fan ne woon di nappati picc di jaay tey ba mu egsi foofu tey koñ bu ñu koy woon kon nañ ko tuddee jàllu picc bu nu gis rek lool men noonu gis ni la fan la ko indi voilà jàngale mi ci biir jàngale mi mooy fan la ko indi ba mu man a faj soxla ba man tey wut ay nit di leen embauché ñuy liggéey mhm. bari na établissement Baara Mbuub naa ko tudd parce que Assane mooy wax ni lëf boo ko bëggee boo ko bëggee nit ñi xam ko dama koy tudd euh, man bi ma nekkee Kaolack fekkoon naa ko ci marché centralu Kaolack ci poste wet poste courant bi la doon jaay ak fi mu indi njaay tey ba ay doomam yor industrie yu mag yi loolu jar na tegtali nit ñi ñu am ci solo bu baax a baax a baax. Mhm. El Hadj Jili Mbay fi mu jaar. ba egsi fii El Hadj Ndiouga Kébé fi nu jaar ba ah. egsi fii. ay nit ñoo xam ni ci lu ndaw la ñu commencé da ca jàpp gëm ko. yàlla barkeel liggéey ba. te barkeel liggéey li ko waral mooy. def ca jox ko àq ba ca war. Mhm. ba pare nangoo daan sa doole. Mhm. as gor day nangoo daan doole. da ngay denc loo dara. doo ko yaakaar amuk alal ya rampe am na solo trop moo tax gis nga gaa yi rampe ci métier boo gis ña rampe ba ca kaw mhm. ñooñu day feeñ day feeñ saa su ne mhm. euh, professeur dëgg la Alaaji Asan yàlla dafa wax ni ki tëdd ba ñu ma ko jox waaye ka teel a xëy dem laa xamul nu ma koy def mhm. ah, ah. Euh, daan doole dafay yoon maanaam bu la yàlla bindee dara manqué wu la macha allah jóg di tàllal loxo wax na dëgg da nga yàqal sax ña ko yelloo mm-hmm. Serigne Fallou daan wax naan cur cur tekk moo gën xërërër kétër mm-hmm. maanaam li ngay am muy wàcc par ndànk par ndànk dina ko jël moo gën mu yàq ci yow ci boo liggéey doo xam noo koy defee mm-hmm. àddina ko àllaaxira jaru ko ci leen leen dinañ la ko laajal dëgg la jërëjëf professeur Lamane Mbaye kon euh, mbir maa ngoog muy am njàngale rek wax dëgg yàlla am na solo trop di yëngu rek euh, saa su ne <laughs> di bañ a taalal ni ko Adja Bintey waxee Binta daal borom kër gi hmm? kër gi dëgg la dëgg la borom kër gi ba muy dugg ci way woy kenn bëgguloon sa doom woy ñun ñi jàngi woon ñëpp foogoon nan ni duñ fi liggéey mmh. ñi ngi fi kon nit léeg-léegi borom boroom liggéey kat nangoo liggéey embauché borom xam-xam di ko fay di ko joxi tegtal mu cay dox. dëgg la te loolu bëgg la nga def la ak sàmm sa bopp. moo koy waral. dëgg la Aziz ko waxee ñi koy exercer ñoo koy jox fulla ji war. ñoo mm-hmm. na solo comportement daal moo indiwaat lépp ci jikko yi rek jikko a defaral la ca euh, la ca bon mu wadd. dëgg la n'est-ce man sa mbàpp daf ma wax ne gis nga di ngeen bu fekk nit buy koy déw di doole ngeen di yëkkati ay ñaar fukk di ko jox mm-hmm. da ngeen di yëkkati loo xam ne boo ko joxee da koy bett mu jariñ ko man loolu nag ma daf ma mu jox ma leçon par mm-hmm. exemple la dernière fois dama romb nit jaare fenn di jënd dara mm-hmm. ma gis kenn ku teg benn plan ndeysaan mag la di jaay juróomi gerte caaf juróomi juróom mhm. wóor la ne kii tey ji boo ko jàppalee bu ëllëgee dina am taabu dëgg la ndeysaan ma yëkkati lu am maanaa jox ko mais dafa toog ci suuf alaaji Assane bëgg a wax ma ne ko demal dëgg rek ma ne ko demal demal bilaay ndegam bu ñu koy def di jàppale nit ñi gis nga tam nit ñi dinañ liggéey alaaji Assane exemple pour alaaji Assane nee na sëriñ si mhm. ba ñëw ci ñoom génne ñaar ñaar fukk jox ah. seen poos moo leen gën a ki leen indi million te xam fu mu ko jëlee ndax kii wóor na leen daa jaay daa bay gerte jaay bay ñebbe mhm. jaay am ngooñam dëri gerteem def ci saaku ñëw indi sëriñ bi moo gën a lew moo gën a baax moo gën a barkeel ki indi 2 millions karawaatu yorub 4 4 wàcce ko taxamu fu mu ko <laughs> dëgg la euh, oustaz xam na lu leer nañ ni alaaji bu saaxo dafa wax nii ñi taxaw ci feuille rouge di yalwaan dee leen leen sarax baax na lool waaye am na ñu leen gën a sonn nekk ci koñ bi ci seen ngor mayu leen ñu génn ca buñ doon deet duñ la tàllal loxo bu la jàddina ruusis fi ñuy jaay xar yi benn waaye dafa ñëw jënd ñaari xar gaare 4 4 beneen patron ñëw gaare 4x4 mu fayal ko xar mi mu doon jënd ñu génn ñoom ñaar am soxna su toog yor ñaari doom di yalwaan ñu di 200 francs jox ko hmm. loolu du ndimbal. Ah am déet na am na solo gis nga ni nga ko waxee Adja Binta kookee euh, a la di nga ne euh, rëccu ma loolee ma def voilà boo bëggee yàlla di da ngay bett ay nitam ay créature am yàlla amuloo ko njariñ lu may ci nit yi mu sàkk nga def ko ca mu defal la waaye moom xaarul ci yow dara n'est-ce léegi nag ma génnaat nag ci domaine u oustaz Pape Anne foofu nag waaraate geeg njàng jàngale moo ko moom ah, ñun suñu àll wa demeewul noonu kon oustaz bisimila ak sa gan Modou jàng kat xaadir la sëñ Mbuub ñu ngi lay ziar bu baax di la gërëm ci teewaay gi jërëjëf Alaaji Assane euh, tey moom yaakaar naa mboolem ku jàkkaarloo ko télévision Futur jaa am nga mbégte waaye itam am nga njàngat bu baree baree baree bari te yonent bi moo waxoon ni alxalqu kulluhum iyaalullahi mu ni mbindeef yëpp njabootu yàlla lañu. Mm-hmm. te ki ci yàlla gën a bëgg mooy ki amal nit ñi njëriñ. dëgg la ki ci yàlla gën a bëgg. Mm-hmm. mooy ki amal nit ñi njëriñ. Mm-hmm. sa turandoo Cheikh El Hadj Abdou daan wax ni euh, bu leen jënd njëg dee leen jënd coono. bu leen jënd njëg dee leen jënd coono xam nga nit ku gàddu la mu gàddu yannu benn góoli. wala mu yannu paan mbaa mu yannu saabu ñàkk tooy képp di wër. nga wàcc ko di waxaaleeg moom luy jar ñaar fukk ngay waxaaleeg moom di waxaaleeg moom ba fukk ak ñett ah mu tax mu ni bu leen jënd dee leen jënd coono yaayaa bind def yaayaa bind def romb kuy jaay juróomi laxas muy jaay gerte ah muy jaay gerte mu ñëw jënd lépp ba pare tegal ko ca loo xam ni bu ëllëgee bu defee kon buusa laan jënd mën naa jënd saaku loolu euh, kon ajaa bi da coono la jënd dañu ne bu leen di jënd njëkk di leen am na ñoo xam ne billaahi dañuy waxaale di waxaale di waxaale ba yow mi koy bëgg a jaay ko bëgg a jaay am na ñoo xam ne noonu lañu mel man am naa genn màgget màggat fële Tiwaawan mhm. moo dàq waxaale ci réew loo wax mu ni dañ maa bëgg a nax dañ maa bëgg a nax boo rombee yoon wi rek gis ku yor ku yor ku yor ñebeem teg ko ndax la mu bay la mu yenn ca tool ba mhm. boo xalaatee loolu mën koo jënd njëg gi mu la wax wala lu ko te nag Seydina Muhammad a gën lu yàlla arabi bi dafa ñëw wax ak rasulullah tuub dugg ci lislaam njool màkk dalal ko la mu yoroon lépp Mustafa génn jox ko ndax moo gën a tabe ñëpp xam nga lu mu ko may mhm. da koo may juru kër juru kër boo ko déggee mooy ay nag giléem ay bëy ay xar juru kër yonent bi may ko ci lu toll ni xur maanaam xur goo xam ne dafa fees dell ki juru kër yonent Yàlla Muhammad may ko lépp waa ji dàq juru kër gi dem dëkk ba waa dëkk ba dajek moom da ngay sàmm léegi mhm. déedéet foo jëlee lii maa ko moom foo ko jëlee mu ne lii day ki ma ko may bu lay may du xalaat ñàkk mhm. xaw ma na dégg dégg dégg la waay ba <laughs> waxatal wax bi waxat waaye ñu ne ko lii foo ko jëlee da ngay sàmm léegi mu ni sàmm ma de foo ko jëlee yaa ko moom mu ni maa ko moom waaw koo foo ko jëlee mu ni lii de ki ma ko may bu lay may du xalaat ñàkk sa waaji rasulullah moo gën a tabe ñëpp gën a baax ñëpp Seydina Muhammad gën a ñëw ñëpp rasulullah gën a ëpp kersa ñëpp Seydina Muhammad daan jël doomu aadama mu tilim mu defar fexe ba mu baax rasulullah yi mm-hmm. boo amee chance ba ne ko jàpp loxoom doo doon nuyu kenn boo ne ko ma ne ma jox la noppam yi soo bàyyiwul du siggi booy liggéey dajeek moom di nga ndax boo sëggee siggi xool ko sëggaat siggi xool ko Moustapha jox la beneen couleur rasulullah yi boo amee soxla dajeek moom bu fa néewul mu wax la kàddu goo xam ne da nga bég way ñeekuwaat ñibbi mm-hmm. Seydina Mouhamed alaaji Moodu mm-hmm. wastami zikra man anwaaru Mamadou Lamine sallallahu alayhi wa sallam lamaat fil kainaati ka shams fi samaayi talaat waa jàng Madina Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xat kaana nuuran wala lawxun wala xalamun wala samaaun bi ilaa waqat rufiat jàng Madina billaahi wala jinaanun wala naarun jahimun wala ars wa furs wala xun mun xarin tasabat mm-hmm. moo tax ba ko busiru tiimee oustaz Pape Hann leer ga gandu ko mënatu la wax mu tiim sayduna Muhammad naan ko fa mablaul ilmi fii annahu basharun annahu yont yàlla muhammad tontu annahu waxaat ko li nga njëkk a wax waxaat ko xiif wa samia nag mi ngi bàyyi ko kër Seex na Seex Saad bu xiif wa taxawal mm-hmm. wastamiata nga diglu taxawal nga diglu zikra man turu ka nga xam ni anwaaruhu ay leeram xam nga xool gi nga may xool xàmmee ma xam li nga sol loolu leer la mi ngi amee ci leeru rasulullahi wastamiata nga diglu zikra man turu ka nga xam ni anwaaruhu ay leeram la ma at jolli nag te muy Seydina Muhammad nee na leerug Seydina Muhammad jolli na ci àdduna bi ci univers bi fi samaa'i dafa mel ni ki jant bu nekk ci aw asamaan leer ba ni naññi nee na noonu la leer bi si gën Muhammad mel. nabi wasxeel maqi nabin jalla xaaliqoo lawlaaw ma kaanat al anwaaru qad sataat waxaat ko waxaat ko Mustafa gër gaa nga Madina fii lay dëkk yaramu jaam ñi borom bariyeer baa ngoog nga Muhammad billaahi Siduna Muhammad أمر على بعد الكائنات كسفي سماء طلعت وسخالي مرق النبيين جل خالقه غير كذا مدينة نوني وسخي نغا خيرولو نغا خيرولو li mat xil Moustapha ci mu taggal si gën a Muhammad Jalla màgg na xaaliquhu aji bindam te mooy rasulullah ndax yàlla ko coppate ci leeram bind leer bu rasulullah insaanal kaamil lawlaw ma sëkk mooy rasulullah lawlaw ma kaanat al anwaaru xat sataat nee na bu nekk loolu leeru sidina Muhammad leer yi bu mu samp àdduna lu leer dawlaawu maa kaana mulku laahi muntaziman nee bu nekkul nag leerug Sidina Muhammad nguurug yàlla gi du nu sew dunyaa wal uxraa bi ku la du am alaaxira du am bu nekkul nag leerug rasulullah nekk nga di leer yow rasulillahi wala lawxun bi muy nekk di leer allahu lahul maxfuus amagul wala xalamun xalima ba yàlla yi bindee yàlla bind ko ko wala samaaun bi muy nekk di leer asamaan amagul bi ilaa waxadru fi an deri asamaan yëkkatiku na ci leeru rasulillahi wala jinaanun nee na bi muy nekk di leer aljana amagul wala naarun bi muy nekk di leer safara amagul jaxiimun wala aha arsun wa fursun wala xutbun xan iktasabat aras amagul suuf amagul kiiraay amagul bu nekkul nag rasulullah moo tax géer ca saalixiina nee na sama sëriñ sama sëriñu baay kan la wol du cheikh mohamed faadal wol du maamin mhm. góor gi al cheikh day calaw maa jaate faati mbay mhm. eh, ak maa jaate nu mbég mbiri cheikh saat bu nee inni uhibbu rasulallahi sayyiduna. seex na seex Saad bu nee na. inni nii ka man Saad Saadul abihi loolu rek inni lan. inni uhibbu rasulallahi sayyiduna. bëgg naa bëgg naa sama maam rasulullah mi nga xam ne mooy sunu sang. xubban taxaasara anumaalu wal waladu. seex na seex Saad bu nee na. bëgg gi ma bëgg rasulullahi moo ma gënal alal moo ma gënal samay doom. mu ma gën a sama lépp wesaara woon na ci ma ma jël sama lépp jox rasulullah wala sa yabluulu mishaaran maa xabati xubbul haa ilwa luluwal jaddadu asfa ila nafsi nga ni nga ni asa ila nafsi min layla wa daratwa wala tuqaaribu jumlun wala billaahi cheikh Saad mu neena waxeetu sharif wa kayfa laa wa wa xayru xalqi xaatibatan ataawo rabbul wara maalam yanal axad waxaat ko wa kayfa laa wa kayfa laa cheikh maam cheikh Saad mu neena lu tax pourquoi wa huwa xayru xalqi xaatibatan moom sa waaji rasuulullaahi di sangu mbindeef yépp ataahu rabbul wara maa lam yanal ahadu dikkal na ko nag borom mbindeef yi maa mbir mu màgg moo xam ne lam yanal lam xarfu nafin wa jazmin wa qalbin mudari maadi yan boo jàng grammaire arab ah. lam yanal lam lam yanal hmm. musul koo am te dootu ko am ci mbindeef yépp mooy li yàlla defal rasulullah yi waaye nguur gi ci xilaafa gi quarante ans six mois Uh-huh. lu mu wax. waxasil dawaaman. sa tur looy wax nee na waxasil na nga amal. dawaaman tig sax. madaxa nuxbatu aashimi. tagg ko jug Hachim nga te mooy rasulullahi. tanaalu lazi tabai min alfaqi wal. nee na boo mënul tagg yonent bi. Alaaji Abdu nee na toogal fa ñuy tagg Seydina Muhammad bu ko defee tanaalu dana am. ma tanaalu tanaalu lazi la nga xam ne tab yaa koy sàkku minal fatxi ci ubbeeku bu fekkee da am bëgg am ouverture bëgg ko am ubbeeku ko àdduna bëgg am yombalu ko àdduna sa lépp jàppandi nee na del tagg rasulullahi soo ko mënul tagg nga toog fa ñuy taggee Seydina Muhammad bi fasil ya abdu ma dumta qaadiran sa turu ndoy wax nee na bii ci darajee rasulillahi fastaxil na nga soxlawoo yaa abdu yow njàm bi maa dumta xaadiran fii ak yaa ngi am kàttan ci lan fa matku rasulallahi min axzami zuhri nee na tagg Seydina Muhammad mooy ngën jaam màgg yi ndëxañ téef li nit di sàkku ci àdduna pour am ko àdduna ak alaxira nee na ba ca ba ca gën a cher ba gën a noble ba a gën a riche mooy tagg rasulullahi mbaa ngay déglu fu ñuy taggee rasulullahi bihi naa la nee na bihi ci dara ji benn benn wax ko benn par benn bi naa la ngir gaa nga ko ca kaw bi la bihi ci daraje rasulillahi naa la la amee maa naa la maa mbir mu màgg moo xam ne naa la am na ko rijaali maratibal arrijalu góoru yàlla yi alaja sax góoru yàlla yi ngay dégg seen daraja ak seen martaba hmm. la am ci ay martaba am ko ci ay daraja ñu ngi ko amee ci daraja yi rasulullah gi al malikil alami jalan anil xasri fa ma ko rasulallaahi alaja du ne tagg ko ndawlu yàlla ga ahmada uddati ahmad moomu mooy sama wéeruwaay moom rasulullah mahabatu sama cofeel ci moom ni ma ko bëggee fii qalbi kanax fi sax ni dafa ni ki muul bu tooy boo ci bindee muul bi ñu ngi ko defar le deuxième mois 82 ba 2015 du far. Musaa ah, ah, ah, ngir gaana Madina. sidra Muhammad. ayaa man ba alxayraat yaa sayyidal wara. nee na Sidina Muhammad ayaa man ba alxayraat yi. Eh, yow balwaa yiw yi. yaa sayyidal wara yow mi nga xam ni yaay sangu mi dee fii. waaye mbokkam ma nee na. sàkkel ma ca Touba asama ca naawel kookan la sëriñ Bamba yi wax bàyyi Basiru ak baaraam ma mel nag Cheikh Mbacke nee na lam yabdu misal Mustafa Muhammad maami sëriñ Sidi Muxtaar maami sëriñ Basiru Abdul Xaadir sëriñ Bamba ne lam yabdu misal Mustafa Muhammadin sëriñ Bamba ne lam yabdu dootul feeñ mithlul Moustapha ku mel ni ku sell ka tamay rasulullah sëriñ Bamba ne dootul fee. sirran wa jëhran fil bara yaa samadi. sirran ci biir wa jëhran ak ci biti fil bara yaa samadi sëriñ Bamba ne. ci biir ci biti Ahmadu ne na ku mel ni Sayyidina Muhammad dootul amati. madarama. islam wal kufra ma Mamadou Lamine. ñëppay ñëw Ahmadu ne ñëppay ñëw ndax moom rasulillah madda tàllal na la naa ñeen al islam diinil islam. wul kufru kéefër day ñu ne ko Ahmadul Xadim mu ne maxaa na Seydina Muhammad far na ko effacé na ko wa bi nasiqari kulli sama xidmato yut jàll mamadu liggéey anil uyubi liggéey gi may liggéeyal rasulullah ci la sama ay lépp dañee wal istiqamatan wa safan wa abat tax ci jub nag ak di ko liggéeyal fu ma toll man Ahmadul Xadim waaye pap sama sëriñ nee na jaate faati mbay ak ma jaate du mbéeg mbéeg góor gi nga xam ne Cheikh Saad boo ko seexal cim teen maami Cheikh Makhtar borom yàlla nee na kan la kan la bàyyu Alioune Badara Mati Fall Boubacar Pindiir ma ca biir Cheikh day calaw nee na ee hamdan li baay si nabil Mustafa xayru nabi zil ula wal ixtifa Cheikh Deccalaw nee mais am na noo ko doon jabatoo ki Cheikh Cheikh Sabu Dekkal ak Xawba ah. Kan Cheikh Deccalaw am na noo ko doon jabatoo waaw dama ni la moo sulli néew ya ndar mhm. waxloo na bay la njaay ca ngum a ngeew billaahi Cheikh Deccalaw moo dekkal Omar Fall ca ah. Lompul maa njaata Faati Mbay ak maa njaata lu mbéeg mbére ay géer ya nen yaa ne ak a sakkan El Hadj Assane Seydina Mohamed. <laughs> sallallahu alayhi wa sallam. mooy ko sakkan. Mm. Ah, El Hadj géwél rek a war a woy. waaw géwél a war a woy. <laughs> Euh, Pape man. <clears throat> xam nga Cheikh Dethialaw moo maam Kalemane ñoo àndoon. waaw waaw Kalemane Mbaye mooy sama maam man moo tax bi muy tudd Cheikh Dethialaw xamatu mu taxaw kontaan naa nañ. Uh-huh. ñoom wax dëgg yàlla gis nga daaneel bi ñu ànd sax ak sëñ Pape daaneel ak moom. <laughs> Adja Binta Adja nag moom xam la. na nag Alaaji Assane ma ne waaye neex na nag ah. daal neex na neex na la. <laughs> <laughs> mais Alaaji bu Alaaji Modou. Euh, am nañ mbégte lool. xam naa gàtt na. Mm-hmm. waaye mënul ñàkk émission boobu di siira. Ah. di ci ci ñëw ñu am waxtoo genn wàll ñu waxtaane rasulullah mais sëñ foog naa bu mu nee dolli gars benn benn avant que Mouhamed di teew ndax revue de presse baa ngi xaar waaye defe naa xaj na fi de xaj na fi xaj na fi ah. wakatali wujudi min ka karimun Mamadou Lamine mhm. sallallahu alayhi wa sallam min karimin abawuk tàmbali ko ci kaw ah, sallallahu alayhi wa sallam Mouhamadou Moussa wax na ni kayfa tarxaa naka la yéegee kayfa bi kayfa imma taajibiya wa imma istifhamiya wa imma taajibul inkaar wa imma istifhamul inkaar dafa am ni dafay laaj ba pare bëgg xam wala dafa xamul ba noppi di laaj wala day laaj ba noppi mu ca la muy laaj mu ni kay fatar xaa naka la yéegee joxoñ jol màkk ne nekk ruq yëkkal sa yéeg yow rasulillahi mu ni yaa samaaw yow asamaan si mooy njol màkk ndax moo tim ñëpp bu nekk lu nag moom dara du am mm-hmm. maa taawalataha gëddanteewul ak yow mooy jéemul a toll ak yow asamaaw benn asamaan mu namm ci 124 000 bi yi yonentu yi yàlla bind amul kenn koy déema dëkkal dëkkaleeg Muhammadu Rasulullah lam yusaawuka fi ulaaka waxata gër gaa nga madina siduna Muhammad billaahi la sana mbir ka doonawu wasana lam yusaawuka lu ñu tolloog yow lu ñu yemoog yow fii ulaaka ci sa kawe yow yonent bi maa taawalataha gëttanteewul ak yow mooy jéemul a tolloog yow إنما مثل شفاتك للناس كما مثل النجوم الماء إنما xamal li ma ngay wax de yow miy déglu innama xamal li masalu misaal nañu si fatiga sa melo li naa si ñee nit ñi Abdullah ibnu Salaam yahud la dafa ñëw seet si yonent bi nabi ne ko yow yaay Abdullah yaa yaa yaa yaa yaa yaa raw ci midin mu ko mën a ko yow yaa yahudu midin mu ko waaw mën tey nee nga yaa fi raw mu ne ko man a mu ko maa ngi lay wax nga wàcc sa aqulayu taala ndax tawraat ak injiil ak sabuur ya nga xam ne géeju nga ca ndax man sama sama euh, feeñ naa fa wala feeñu ma ca mm-hmm. sa la teg xam ne boo ko tontoo rek gaa yëpp d'accord ah. mu ne ko dama lay laaj yow Mamadou Ibn laay yàlla bëgg nga wax ma carte d'identité jibri na lay jëpp ne ko salaamaaleykum yabal xaasim yàllaa ngi lay nuyu maa yëg nga ni yàllaa ngi lay nuyu sa waa ji a ka daan dégg <laughs> yàllaa ngi lay nuyu yàlla nee na waaw yàlla nee na kaar daanteem lay laaj nee ko xul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad abdulahi bi salaam weedam xam ni tawraat indi na ko sabuur indi na ko injil indi na ko ndax isaa bërki démb wax na bërki démb ni yaa bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrata rasuliyaati min baadi ismuhu ahmad alaj moo du ne innama xamal ni masalu misaal lañu sifaatika sa melo li naa si nit ñi kama masalu comme naka la nuy misaalee u ci ndox boo jëlee paan wala wala wala bool def ci ndox guddi jot nga teg ko ci ëtt bi boo xoolee ci suuf di nga seen biddiw yi ci kaw noonu la si Seydina Muhammad eh, eh, anta yow rasulillahi misbaaxu kullu fadli. kullu fadli fama tasdurul ilaa andawi kaladwaaw. yaay lamp bépp ngëneel fama tasdur du gongi ko aladwaaw leer yi ilaa andawika nderee sa leer yow rasulillahi lamp boo taal mu tàkk mi ngi leere ci leeru sidina Muhammad. la kadaadul ulumi min alimil ghaybi Mamadu Lamin. billaahi. wa min ali adama lasma. waaw waaw. moom la billaahi xasaat ulum al alim al ghaybi wa min ali adama lasma laka ñeel na la yow rasulillahi zatil ulumi jëmmi xam-xam jëmmi xam-xam min alim al ghaybi keroog ba nekk ci alim al ghaybi ba yàlla woowee malaaka yi teg aadama aadama yàlla ne ko malaaka yi ne ko yàlla bul yónni kii dañuy rey ba ci suuf di di wëndi di wax lu bon <laughs> yàlla ne leen xam naa lu ngeen xamul woo aadama waa naa def benn examen ku génn yaa ngi wutu ci kaw suuf yàlla jël nga mën a dégg portable amagul de mais nga mën a dégg lii lu mu doon boobu sax mënoon naa am lii lu mu doon malaaka yi def déyante Jibril Israfil Azraïl gars yi xamu xamuñu ko de Adama Adama yàlla la nga mën a dégg ci noir lii lu mu doon malaaka yi déyante Adama daal di wax Adama gañe ah waykat bi nii la ko ñeel na la yow rasulillah waxu la Adama de Mustafa la yoo xam hmm. zaatil ulumi jëmmi xam-xam min aalimil xëy bi keroog bañ nekkee ca aalimul xëy bi mu ni wa min ha foofa li aadamin ñeel maam aadama al asmaa ut tur yëg yañ doon wan muy tontu mi ngi amee ci daraje rasulillah lam tazal bi damaayil kawni tuxtaar lakal umaat waa ana waa rasulillah yi def leen nii lam tazal bi damaayil kawni tuxtaar لم تزل xawmaa lam tazal musul deñ fii damaa'iril kaw na ci nëbbu kaw na bi hmm. la ka ñeel la doxtaaru la défi la tànneel uma hëtu ay ndey dafa bokk ci askan bu baax ay ndey yàlla tànnal ko ay yaay yu baax ay ndey ab Amina ko jur wax jur ko Abdou Manaf jur ko Zuhra jur ko Amina moom baratu bi taxafu moo moo ko jur ko jur ko jur ko Umu ko jur ko ay ndey waaye wala abaaw ak i ko jur Abdul jur ko Hasim jur ko Abdou jur ko Ousay jur ko Kilab jur ko Morasa jur ko Kaab jur ko Luway jur ko Ghalib jur ko Fihri jur ko Malik jur ko Sadad jur ko Kinaanata jur ko Xusaymata jur ko Mudrikata jur ko Ilias jur ko Mudar jur ko Nidar jur ko Maat jur ko Adnan jur ko maami jigéeni foog na Fatimatun Salma wa Atikatun Xubbe hindal lahun simmi waxsiyatu min shaybaanin wa maawiyatun bi waawi Salma wa Layla wa uddalam tulami minhunna jandalatun laa tabqa Atikatam wa baratun suma bintu Saadi dil karami Salma wa Layla rabaabun sawdatun wa muaanatun wa maadun il abyaata tërtanimi leerug rasulillahi musul jaar ci ndiglu ma sama yàlla ndiglu mu jaar yaa yilif jamono deñul nag yàlla di ko tànnal ay yaay baax di ko tànnal ay baay yu baax moom bàyyi Fatima ko umma kalsum ak Zeynab abu adama aw saasi ya si abi mi bàyyi maa jor nee na gumba mhm. siise góor njaay jaaxa siise maa dammeel nee abu adama aw saasi sa muxtaniyan ألا لا يزال مسنا في سحابهم بالله فلم يزل شرفا يدني من شرف dégg nga dégg nga dégg nga maam Maajoor Cissé nee na musul dañ moom yonent bi di tedd waaye di ko jege ñu tedd ci lu tedd la jógee min xiiratil karam yi lil xiiratil karam yi mooy dafa jóge ci maam yi baax jëm ci maam yi baax moom yonent bi alayhi salaam. yaa laylatan asfarat an yawmi mawlidihi. Mhm. maa saa jalabta min alxayraati wa niami kon foxum li mawlidihi shaami sharifi wa kun muhtasaban ahsanal adabi waxtarami jërëjëf alaaj Moodu yal na yàlla gën la barkeel yàlla bu la kenn ëppale ci Sidina Muhammad euh, ma bàyyi la ma bàyyi la nag nga daal di nuyoo daal di tàggoo nag télévision Futurs Médias ngi lay gërëm am nañ mbégte lool ci sa teewaay mm-hmm. jërëjëf euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam ñu ngi nuyu àddina bi yëpp di nuyu diaspora bi yëpp. di ñaan ci barke Seydouna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam euh, télé bi yal na ko yàlla yokk. amiin yàlla ndax vraiment àddina yëpp gis nañ ci seen bopp. li ngeen naan mooy seetu askan wi dëgg la mooy seetu askan wi ndax euh, bi mu ñëweeg léegi tàggkatu yonent yeeg fa tabarakallahu ñi ngeen ne ñi nekk ci weneen wàlli aar beeg ñëpp gis nañ ci seen bopp. kon liggéey bi yàlla na ko yàlla gën a ñoŋal amiin oustaz ñu ngi lay siyaare ak sunu wayjur yi nekk ci plateau bi yëpp defe naa ne bu ñu tuddee sunu baay Abdou Aziz Mame Fama rek ñu ñëpp di wax ne nag ñu ngi waajal ak télévision bi loo xamante ni si incha allahu bu nu ci yeggee dinañ ko koy lu rëy bu guddik bu yont yàlla Muhammad ñu dara jaale ko nag Cheikhna Cheikh Saad bu boobaa incha allah bu ñu ci yeggsee yàggatul sax ndax maa ngi ciy waxtaan ak gars yi incha allah dinañ ci def ay affaire ak télé yu neexee yàlla di la yóbban di la jox sa nuyoo sa nuyoo yóbban sa soppe Ndeye Mati faal Fall doomu Cheikh Makhtar Seck bu Ngura di ñaanal sunu xalifa ba yàlla a ko wér di ñaanal tamit bàyyi naa Mamadou ak Cheikh Makhtar Seck ñu yàgg fa lool te ànd ak wér ak mbooleem kër Cheikh na Cheikh Mouhamed Wadul Maamin mbooleem tarixa yi yëpp xalif généraux yëpp soppe yeeg xarit yeeg ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf jërëjëf xaaj Modou Alaaji Asan mi ngi noonu waa ji koy gërëm rek passé kër Sigil xaaj Malick ñëwoon mhm. tey nag ma indi kër Seex na Seex Saad bu xam na solo mbuub am ci taxawaay doon jàmbaar lool waaye insha allahu taala aljuma jii di ñëw mhm. kër Seexul Xadim ñoo ñëw ba ca topp ma dem nag fii ci Yoof mhm. seeti kër maam Limaamulaahi ginnaaw bu ñu nuyoo xalifa bi mu yàgg fi lool amiin euh, nuyu soxna maam Faati Thiaw Laay sama jigéen boobu leen moom itam yal na ko yàlla yokk ci da noonu la télévision Futurs Médias doxee dëgg la yëpp aljuma ñu jot kenn dina ñëw ñu waxtaane rasulullah am na solo oustaz Pape ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant vraiment gars yi daanooti nañu ñu ngi gërëm bu baax moo euh, Modou Mboub mi ñu ci àndaloon euh, ci yëkkatu yooyu am solo lool ni nga ko waxee TFM noonu la tëddee Sénégal moo ni tëddee këru diine yëpp benn lañ foog naa ni euh, njaboot yëpp benn lañu te ñëpp fa ñu jëme fenn fi la mooy ci suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla vraiment dolli leer gi euh, ñun daanaka mënees nañu sant yàlla ndax jotaay gi ñu toog jotaay gi ñu tàggee Seydina Mouhamad ànd ci ak Pape Hann foog naa ni lépp ay yomb moom ku fi umu woon sax tey jii defe naa ne ubbiku di ko am ci bëccëg gi boo ubbikuwul nag ba tàkkusaan nga xoolaat sa bopp dem nag eh, ne Mouhamed Ndiaye jàppaat julli xool ndax matal nga fara tey Mouhamed <laughs> maa ngi lay siyaar <laughs> mais namm naa la maa maa la raw alhamdulilah bu a baax nuyu ñi nga bokkal plateau bi professeur ah. dama la waxoon rek bu ma jàddee yoon rek xëccal nopp de maa ngi lay nuyu oustaz yow moom bëgg koo bëgg sama turandoo tax yamalew ma la ak dara ah ndeysaan dëgg la. El Hadj Assane. Uh-huh. soxna si moom. waaw Adja moom xamante ngeen. waaw tur ca kër ga naa notre grande notre grande commerçante di bañ ko ko catu nag day làq bu suuf rek. waaw leen boo ñëwee Futurs Médias. Hmm. immeuble di laajte Binta da ngay réer. Ah. nga naan karabaat la sorcière. <laughs> na nga def soxna Binta. ay ja mooy kan moo lay kan mooy kan mooy jox départ Mouhamed comme d'habitude yaa Oustaz yéen i kaay yi. jërë ngeen jëf. nañu xool observateur ci xëtamu njëkk moom la ñuy doore mi xëy dikk ñun ci lu aju ci ay girimoxo yoo xam ne yéen bi ne nañu ko yóbbu séntu ko ci biir Parti démocratique Sénégal maanaam ci gàttal yëf ya tar xeex ba metti na li nga xamante ne ji moom moo euh, bokk na ci euh, Aïda Mbodj mi a doon jiital groupe parlementaire libéral ak euh, démocratique te bureau assemblée nationale ne Modou Diagne Fada yoon jox ngir mu jiite bureau bi yéen kaay bi la mu ca gis moo di nee nañu dañuy porter plainte Modou Diagne Fada ndax faux et usage de faux maanaam dafa def ay ne ji moom moo di seeni signature dugal ko ci ordinateur scanné ko dem yóbbu leen loolee ñu ne daal euh, duñ ci ànd tey duñu ci ànd ëllëg Modou Diagne Fada moo wax lii ci xët mu njëkk observateur nee waxul ci seen tur waxul ci turu Parti démocratique Sénégal maître Babou it li mu gis ba wax ko à l'observateur mooy la ñu ne ci assemblée nationale noonu la bureau ba doxalee bu gars yi ne dañoo sukkandiku ci règlement intérieur bu euh, bureau assemblée nationale wax nañu lu leen neex gars yi euh, dañoo kon violé ne ji moo di règle yu nga xamante ne ji noonu lay doxee démocratique Sénégal yi doon nañ ko def naka démb li mu ci gis moo di ñañu ca gënoon a sonal ñañ ca gënoon euh, yakk lu mel ni xeme moo di Macky Sall ak Moustapha sa te nag yamu ca ndax nee nañu bataille juridique ci la ñu jëm maanaam daal yëf yi dañ ko yóbbu ca yoon lijjantee ko fa loolee Aïda Mbodj ci biir journal bi mi ngi wax ne moom xeex ci deretam la nekk kon lii du ko bàyyi mu demee noonu dana ci xeex ba lu mu ci am euh, jël ñu dikk ci enquête fekk fa Abdoulaye wàdd ci xët mu njëkk mi moom góor gi moo yëkkati loxo bi noonee yéenekaay bi la mu gis mooy Abdoulaye Wade léegi nag yëf yi ca wàllu yoon la bataille juridique bi lay engagé lu aju ci Omar Sarr ki ñooñam ñu ne Moustapha Niass ak ki nga xam ne ñoo di Macky Sall ñoo teg pexey ngir bëgg a parti bi benn yéenekaay Walfadjri bu dee yemb na ñu xool la nga xamante ne ji moo ca nekk voilà euh, Omar Sarr ci xët mu njëkk mi li muy wax mooy gars yi parti démocratique sénégalais teg nañu seen plan ngir xeex ak ñi nga xamante ne ñoo bëgg a yàq seen groupe parlementaire ba ci assemblée nationale danañu plainte Moustapha Niasse danañu plainte ki nga xamante ne ji moo di Modou Diagne Fada Sud Quotidien dellu siwaat ci gis ne gars yi PDS yi defaru nañu ba jekk daas nañu seen i ngànnaay nàmm nañu ko jamono ji toog di xaar defante rek eh, ci la ñu jublu direct info ñëw ci meneen mbir mu di lu aju ci eh, Modou Diagne Fada mi nga xamante ne ji yéenekaay bi dafa gis ne gannaaw bi mu fi waree wàdd génn ci ci ak langam dem taxawal waar wi nekk ca di bàyyil boppam fada jamaat na Abdoulaye Wade beneen paak ginnaaw ndax na mu ko def ci assemblée nationale moom Modou Diagne Fada ci grand place moo ca nekk yéenekaay bi di laaj Modou Diagne Fada moomee ci grand place mi ngi nii eh, gannaaw ñaari plainte ñi ngi koy dàq ana kan mooy ñori mbalaanum kiir laaye mu di immunité parlementaire laaj bi mi ngi ci xët mu njëkk journal bi nga xamante ne ji moo di grand place maître Aladji Diouf ci réew mi quotidien moom it ab janok taskatu xabaar yi la bi nañu bàyyilul Modou Diagne Fada nee na Modou Diagne Fada gars yi dañ a topp ci yoon euh, faux et usage de faux maanaam ay tappaleek njuuj njaaj ak yu ni mel ci jàmbur yi mu sàcc loolee la ñu a dem lijjantee ko ak moom yemuñu ca de Moustapha lu ñu ko def lu dul yóbbu ko ca kanamu haute cour de justice àttee ko fa Alaaji Diouf ne defuñu li nga xamante ne ji kon moom moo leen war ñu dellu ci l'observateur xool yi fa Alaaji Malick Gakou ma nga kaw a bi nañu demoon nag seeti Karim Wade bu yàggul moom Malick Gakou borom grand parti waxtaan yu mu séq waa l'observateur ña ngi ko cay laaj ana lan la wuti woon foofee mu ne leen Karim frère am la ndax Abdoulaye Wade da koo jàppee doom comme nag Abdoulaye Wade doom la ko jàppe mu jàppee ko bàyyi bu Karim nekkee ci jafe-jafe da koy da koy dem seeti mi ngi wax sax ne amul dara la ko Wade mës a defal wala ki nga xamante ne ji moom moo di Karim Wade en tout cas moom njiital grand parti grande interview la def ak journaliste yi nga xamante ne ji ñoom ñooy euh, yu Futurs Médias maanaam wàllu observateur ñu wax ci wàllu tàggat yaram ak jour de sport mi nga xamante ne ji dafa ñëwee ab xayma bu mu def jëm kon jour de sport jàppandeegul ñu dem ci stade yéen kaay ba xam voilà jour de sport ngook ay élage ñu dellu tuuti ginnaaw ñetti entraîneur yoo xam ne li yéen kaay bi mooy seenu doxalin soriantowul ndax jàppal Aliou Cissé juróom-benn match yi mu fi jot a def jot naa convoqué fanweeri joueur ak juróom-benn Alain Giresse juróom-benn match yu njëkk jot naa convoqué fanweeri joueur ak ñeent Amara Traoré juróom-benn match am yu njëkk jot naa convoqué fanweeri joueur ak ñett ci gàttal ñoom ñëpp a yam euh, kii di Pape Diouf ci stade ma nga mel ne kuy défendre Aliou Cissé lii la wax nee na mën nañu ko toppee lu nekk ba mu des ci ne entraîneur baa ngi wuti solution élage ndax wut solution lañ ko lañ ko fale nañ ko bàyyi mu wër jeex na ah, ñu rek Mouhamed ndax xam nga football bu ñu ñi xam di wax ci football bi waaye Sénégal ñëpp ay entraîneur euh, sama maas geek sa maas geek RFM boo fa demee rédaction da ngay foog ni yaa ngi fële ca euh, journal sport alors que gars yi moom football mënuñ ci dara Sénégal mel noonu lu lu nekk à la mode rek ami expert nañ ko bàyyi expert yi mais ma kenn dendeleel Alain Giresse moom ak Casper <laughs> man Giresse sax ma taneel Kasper Zak Kasper Zak moom daf daf ñu fay rek ñu tumuranke Giresse moom daa bàyyi ba dem Paris di jëw moom ma ko canal canal télévision canal mu ñuy jëw naan woy il se prend pour le centre du monde fi ñu yóbbu seen football eggu fa bëgguma ko wax ñu naan damay damay damay far waaye ñàkk kersa gi mu ci boole loon <laughs> ñàkk kersa gi mënee su koo wax waaye comme ma nga Mali te xamante na ñoom wala ñu wax ñàkk yitte gi rek xëy na xëy na ndeysaan am na yitte de kersa la ñàkk <laughs> elal am na yitte jërëjëf Mamadou Mouhamed di eh, ñaanal rek eh, Aliou Cissé vraiment mu am ndam ci sas bi ñu ko dénk eh, critique yi aayul na ko gars yi rek jël ci anam yi mu gënee wax dëgg yàlla xam ne dañoo bëgg a defar mu bañ a doon aussi yoo xam ne dafay yàq ah. je pense que ni yëf na bañ a tàng na doon ak wecc compter rek wecc compter échange Sénégal nag moom werante lañ gën a mën waaw werante nañu ba jël coupe d'Afrique waroon na yendoo fecc ñu yendoo xuloo <laughs> fii rek laa ko gisee Sénégal jël coupe d'Afrique war a feetu ñuy critiquer tey ku ne xuloo mbéj na ko mbéju ko euh, kon ñu dellu ci waañ wa dafa mel ni Alfie noppi na bu ko defee rek ñu tëj waxtaan wi ñu koy tëjee moom am na solo lool ndax xam naa ni euh, hmm? Mohamed mu ñam ndax xorom bi yëpp dem na. ah tey moom mooy def dégustation. Mohamed xool xool ndax c'est croustillant. lii <laughs> lekkum ndaw la moo waaw lekkum ndaw la moo tax. kan ngay gaaruwaale fii ci plateau bi <laughs> fii gis nañ fi ñuy def jugement kër gi ñu bari dañoo def jugement am na fi ñoo xam ne fekke nañu ngóob bu njëkk bu xel ko ñëw tey naan yaay xale lañu Mouhamed Ndiaye mi ci ngóob bu njëkk ma. ko mu njëkk ma 91 <laughs> ay jë Mouhamed ñamal xol. nga xam c'est croustillant. waaye moytul mu tàng de ndax doo ko jàll caméra du la may foo ko jàllalee. <laughs> nee na nee na nee na ma dagg ko kon. ñu fàttali turu plat bi sax. alfino bu tuddee croustillant euh, euh, aux crevettes. croustillant aux euh, crevettes donc waa di souhaiter une bonne dégustation rek. en espérant que nit ñi mën ko reprendre. Ah, très bien <laughs> jërëjëf. merci beaucoup vraiment jaraw lakk lañ lay wax. saa su ne yaa ngi ci waañ bi lépp ngir bëggal mbokki téléspectateurs yi surtout jigéen ñi ñu gën a mokkal waañ wi. Ah. ndax gën a mën a téye seen i borom kër. foog naa ni am na fu ñu leen di téye ku ci mel ni genre Mouhamed Ndiaye yi ah. dootuñu génn. pourcentage pourcentage bu mag la ci de. yow yow yow ce que xam nga luy déguster déguster bokk nag war na ba suur da ngay ñam wax ñu lu muy saf. su ma suuree laay soog a mën a jox <laughs> voilà merci Mohamed. merci beaucoup merci. ñu lay gërëm yaa ngi ñu nga àndaloon yëpp Beurre Sofia notamment euh, kon gars yi ñu tàggoo rek. sama gars yi nag ñëpp a ngi seen xel yaa ngi ci lekk moo taxoon sëñ bu baax ba ne woon bu lekk tegee julli taxaw lekkal ba noppi soog a julli ndax boo jullee pare julli ga lépp saaree sa lekk gal sa xel bi Aziz tàggool <laughs> waaw mais euh, El Hadj Assane jërëjëf di nuyu rek bu baax sama ay waajur yu jigéen yu nekk fii mooy euh, ki nga xam ni mooy Adja Soda Gueye Fallou Adja Ngoy Ndiaye Tivaouane mm-hmm. ak sama yaay Adja Maam Fama Diop di leen wax rek ni euh, yeewu leen àjjuma bi am na mm-hmm. bu mag muy El Hadj Assane di Pape da koo àggale xam naa ni buñ ko toppee dina mën a firi leneen waaw maa la ko wax maa la wax nit jarta xeeb de am na ñoo xam nag doo leen xam Aziz dañ lay dend ak yow doo xam seen valeur da ngay dem di yóotu loo xam ne mu ngi sa wet saa yi na nga xëy di ñaan lu ñu ca boo ma talaloon loxoy fii na na weexal bi duun nag <laughs> man duma ñaan ci ay weexal yoo xam ne am na ñoo xam ne seen ñaan li tax du nangu ay 1000 francs la jox sëriñ bi ay 3900 kooku nan nga mën a amee ñaan bal boo gis rek ak mala ba muy rey daa am bal buy rey picc am boo xam ne ñay lay rey boo bëggee bal bi rey ñay da ngay génne n'est-ce pas <laughs> yow saas ñu tàggoog mbokk yi waaw dégg rek xam nga xam nga léegi incha allahu taala tous les vendredis bu ngeen Euh, bu ñu defee yeewu leen ba pare rek. man damay def plus bi laay def. waaw xam ni euh, damay jàll ba 11h. Mhm. incha allahu taala maa ngi xaar samay téléspectateurs. ah très xaar ma bu leen bu kenn dem. ok léegi damay si ngoon gi tam da ngay ñëwaat 16h damay ñëw ah. def si. njaga mbaa di jox na la eh, kii per jëm indemnité yokku na. ah ne ah def naa ko dina yokku <laughs> euh, sama directeur dina yokku ñaan daal soppi si ginnaaw Mouhamed na yàlla yokku leen. amiin amiin yaa ba ci kanam incha allahu taala. incha allah an jërëjëf amoon nañu mbégte ànd ak yow comme d'habitude ak Cheikh Lamane ñu tàggoo laata ak Alfi waaw euh, di gërëm ñëpp di sant Alfi ci plat bu rafet bi nga xam ne moom la joxe mhm. yaakaar naa ni ku jara sant la wax nga ko sànq ci waañ mi di gërëm tamit euh, waa Kébémer mhm. sama wayjur El Hadj Maam Jaaji Mbay ak samay wayjur yëpp di gërëm la di ci kontaan muy amiral Cheikh Bara Sissoko mhm. ak soxnaam di soppay Seyd di soppay Seydina Mohamed moo ak El Hadj Doudou ak euh, ñi koy seetaan ñëpp di leen sant di leen gërëm waaw Doudou Diagne suñu wëllëre ñu koy gërëm amiral euh, Cheikh Bara Sissoko nag mbokk yi mooy ki nekkoon aide de camp bu Abdoulaye sëñ Sissoko binta bi nga ne Cheikh Baara rek gis nga ni mu bëggee waaye Cheikh Baara nekkatul ci yooyu ñu ngi ko dégg marine marine bi bu dee mën ngaa fay ma nga ca marine ba foog naa ni foofu alaaj defe naa ba tey wëlis waa nga ak moom wëlis waa nga ak moom dégg naa ñëw dañ koy seeti bala ñu ko invité ndax attan ngaa dem mu dénkaane wëlis xam nga dëgg wala ñu ñëw mu dénk ñu gaal ñu ne ay gaalu surveillance la dugg leen ci géej gi te ñun mënuñu fay waa Thiès lañu maa euh, euh, ngi toog ak ah. soxnaam yëpp mm-hmm. waaye mel na ni wëlis waa ndax keroog. def na man loo xam ni. ndeysaan jeexagul ba tey. bu histoire nga fa bu histoire nga fa ci loolu dëkk yàgg na ci. <laughs> jërëjëf Binta ñu tàggoo waaw nag yàlla barkeel. amiin man tey kenn rek laay gërëm mooy El Hadj Babacar Fall ak mm. madame Fall. ndax Babacar Fall. Ah, sama euh, sama madame Fall nag doo doo ñu doo ñu njëkk a gërëm madame Fall ndax moom a yaru borom këram moom yaa ngi <laughs> gis nga gis nga euh, Futurs Médias yàlla daf leen nattoo leen seeni soxnaa leen gën ñoom ñoom ñëpp nag koo ci tudd jabaram soxna yi macha allah waaw ak man mi toog. waaw waaw moom kay moo tax nañ sant rek moom amul dend moom dafa baax sama sœur la <laughs> may gërëm Babacar Fall na dafa dem ba màkk jël valise jëndal ma yu rafet. ndeysaan ñëw jox ma ko. mais yaay njëkkee aussi ah loolu c'est moom ci la ah, bokk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne macha allah moom moo ko indi. moom moom la may njëkkee ci liggéeykaay ba rek. ndeysaan mu def ma njëkkee def ma sëram def ma léppam dëgg la mënuma ko fay loolu exemple loolu mooy wane ni entreprise yi war nañ gën a fóot xol yi mhm. xam ni ñooy njaboot gu njëkk gi mhm. sa kër doo fa def sax waxtu yu bari gis nga ah. Pape Ana ngi naan su ma paree maag yéen ba 11h ensuite ngoon gi fi ngay yendu kon ñii ñooy sa njaboot mm-hmm. donc nit ñi war a rafetal diggante yi mm-hmm. ci directeurs yi dimbaliñ ci dàqal ñu lépp luy saytaane ñiy jaxasee que nett li nañ leen ci biti voilà boole ñi nga xam ne ñooy mayante ay njëkke tuddante ay doom yénente lu baax vraiment Babacar def na lu rafet euh, dëkkandoo bu yàgg mbokk la mm-hmm. vraiment di rek euh, nag plaindre un peu bis bu ko yàlla mayee doom bu jigéen insha allah turandoo ba bu jëlee ñett ci jikko yi rek waxuma la juróom-ñaari rek bu ko jëlee macha allah <laughs> di gërëm ñëpp di leen euh, souhaiter un bon week-end te ba leen di incha allah ak Pape Cheikh. incha allah. yaa tudd yaa tudd Pape Cheikh daal du ma def lu may ñaanal ko ñaanal équipe am ñaanal ay mbokkam di bu baax xale bu baax am yar xale bu am yar Diallo maa bu am yar am yar waaw kenn mënu ñoo jaxase ak moom Pape Cheikh ba ñu xamante moom yàgg na ba muy sol diin delavé boobu nekk RMD nekk gune gu ndaw la ma daan woo ñu jokkoo téléphone kenn mënu maa jaxase waaw donte nag tey star la waaw nuyu nit ku baax boo waxee safaanu bu altine nga daj lu ndurgul dëkk ca taal ñu ngi leen di gërëm mbokk yi gërëm la régie alaaj Mamadou Mbaye Garmi Mamadou Mbaye Garmi ma ne ko doo ñëw ci sunu plateau mu plateau paa yooyu <laughs> la ba ko rek non xam nga moom ndeysaan moom alaaji Mbaye Garmi daf di sama xarit d'ailleurs moom mooma tuddee la voix d'or la voix d'or sama baat bu xuur bu naqari bi <laughs> donc foog naa nag ci màgget yi la bokk boo gisee mbaxanaam yooyu muy tagal waaw bu mu ñu boole ji <laughs> voilà ñu gërëm la régie vraiment production am nañu solo ci liggéey bi ah boo gisee ñun ñu ñëw di jàllale ñun ñooy euh, taaj ndab yi rek waaye ñi demoon marché toggoon raxas euh, vraiment éplucher les légumes et tout ñoom ñooy ñooñee mm-hmm. la régie les techniciens caméraman ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn lu jàmm